ñëw Pikine. booy yëpp topp la. non non non non xoolal booy sam boo lay. mais Pikine tey mënu ma see wax dara ndax Pikine tey jii ñëwaat naa ñu ne doo dugg. lan mooy seen problème. dañ laa xamul. non waaye nee naa la bërëb boo gis nee naa la bërëb boo gis. nee la bërëb boo gis boo déggee mën nañu xamul. waaw boo gis am na personne boo xam ne day bëgg a suul ndaanaan. waaw mais xam naa ko bu baax mais ndaanaan bu dee dox baay ko mu dem ndax Pikine tey jii bis bii ñu am ni man damaa yaakaar ne réy gi mu réy man xañ naa si xanaa dëgg neexul parce que bu doon benn nit am na ñu ma fi bëgg mais nga ñëw nga xam làmbaloog bu baax ne tey dama koy toroxal si bunt bi loolu tamit rafetul si gor man mun naa toog sama kër seetaanaat lépp daa jum ko ndax man mais mais mbër mbër defuma ko fi waaw déglul déglul mbër defuma ko fi fan si defuma ko fi nit ku xam nit it defuma ko fi mais nit boo ko xoolee rek xam na li muy wax xaayaan ku dégg séeréer mais nañu xoolal rafet bi mu rafet quoi parce que man tamit damaa ñëw pour defarale leen rek. mais pour classer leen. parce que boo yaa ngi nii bu ma nee hop hop hop ñëpp ne der. loolu culo waaw te tamit a ñëw xool tuusu booy ñaar tey tey tuusu Ama Balde déglu ko ba na mu doon defee na muy defee tey benn la wala du benn mu yël bu ma xam ba xam na wala du ñëw. bu ma génnee su ma si Ama Balde ñëpp xam ne loolu la. mais tey may ñu ko kon lu may wax si moom. non non non man damaa war a liggéeyi. xool a a xam ne ñoom tamit liggéey quoi mais man tamit dañ maa war ne ba maa war a liggéey ah, mais xoolal ñii ñoo tax ma wax wallaahi. mais mais mais champion bu. Euh, lamb may ko ko mu topp sa xol may ko ko rek. nga ñëw tey ñu loolu doo dugg loolu lu la def. non metti wu de parce que lamb moo mel noonu. waaw mel noonu. lamb nee nañ lamb waaw lamb lamb du ëmb day wasi. arrêté waay. am commencé am tey damaa bég. maa ni nga ma lan. am tey képp kuy doomu Pikine boo bégul rek yow jaam nga am am man doomu Pikine laa Pikine ma ñor barki mam serapal bo ñax sama rakk la maa mako génne maa ko tette fi sama loxo tay ji bo ñewon sama gal ma génne la ay asifir yo xam bu mu leen génneel ma bo ñax tollut ni boy bi bobu mu ngeeg man mo uuf ko pi bëri na fi 4 combat 4 victoires barki Serigne Touba billahi wallahi wa taalaayi ñun Pikine ño bokk ndey bo ño bokk baye gan ben affaire bon fi duggoon rek affaire bobu dañ na mais li dafa nice ni tey da parce que lu ma doon xeex nañ ànd bokk ndey bokk bàyyi pour cent pour cent Pikine ànd di xàccandoo di dóorandoo ànd di contact suñu biir ànd mën a la samaay mën a la suñu biir man la Malick Ndiaye woote wootewu ma kalan wootewu ma xuloo wootewu ma dara lu passé suñu ginnaaw nañu ubbi pour lu mbari dugal ko te fàtte ko la nga doon woote ak li nga gis tey kontaan kontaan gars yi fekk seen Messi parce que maam seen bal coach yeeg coach Pikine yëpp groupe des coach moo ngi nii. gis naa gis naa tey naa tey ngay longu ku ne. ay père Deggo la ku ne longu nga ko mais kontaan loolu laa bëggoon ànd bokk ndey bokk baay bi. ku xew la ñun ñëpp ñu doole la topp sa ginnaaw mais tamit bu ma wootee loolu ñëw si stade bi gis loolu ñëw combat Ndiaga gis nga gis loolu ñëw combat Prince gis loolu ñëw combat Pokola gis loolu mais tamit ndax parce que ama seen gis loolu mais man damay kontaan damay am damay mbégte ndax parce que loolu laa doon woote te gars yi fekk nañ ma si am ñu gis nga kottu ama seen sa yaram daw nga am loo wax kàddu yoo dee man ama seen man ak man ak moom jamonoy mbapat la Ousa Sow suukar la ko bañ doon dëkk mbapatu mbay sàmb ma ama seen mbappatu Pape Diouf mbër ak mbappat fi mu fu mu bëre ñun ñoo ko yóbbu topp si ginnaawam di xeex ndax moom nag jaay suñu bakkan ndax moom te boobu doon gu ñu mbër waaw ah, kon ñun Pikine ñoo bokk ndey bokk baay. yéen a bokk ndey yéen bokk baay mais yéen a ngi jëm si bis bu bis bu garaaw bis bu dangereux. waaw mais yow xam nga ne yow bis bi mënu dangereux ndax parce que fa fa muy dangereux foofu ñu ne fa fa lay dangereux muy Fass dañ fa dugg trop dañ fa dugg quatre fois am fa ndam. waaw da kon foofu ñun xam nañ leen. Ama mi ngi bëre Gris bu soxla. waaw Gris bu soxla xam naa Ama moo soxla wut xanaa Ama soxla wut Gris mag la léegi mu bàyyi làmb mais Ama muy xale nag am ci lu mu jóge kon combat bi naroon nañ ko ci may gën a soxla te ay ndaanaanu bërekat ñooy dar Ama ñoo ko yóbbu te Ama du dof. daa bis bi bis bu ngeen bëgg la bu fonk la. parce que Serigne dañ ko fonk dañ ko bëgg. bis bi bis bu fonk la Gris am na combat. gis nañ ñoom ñëpp ngeen soldat rek génn yéen ñëpp ñëw. waaw mais loolu mooy loolu mooy Pikine Pikine loolu la mos a xam xoolal ndong doom si yàlla si ndongolo ah Pikine boo laalee kii laal nga këlee ndongolo way nañ ko am déet mais la ndongolo wooyoon tey moom laa gisaat kan ñun kenn duñu jaxase. Pikine dekki na dekki na. dootuñu jaxase. mais yow foo toll da nga bàyyi bëre wala. non bàyyi ma bëri ñoo ngi dox sama combat i ngi may woo di ma xay combat. nga yooyu noonu mooy loolu. ma gis yow ak ñax yi état euh, moo ñoo ngi dox ñoo ngi dox sama combat moom. Ah, Tapha Gueye 2 waaw te te pare na pour bëre ak man. pare na pour bëre yow. waaw ndax parce que waaw jour tabaski woo naa ko baalu ko ak na ko mag ji léegi nag mu ne ma demal nga gis Baye Ndiaye bu paree rek man pare naa daa nga bëgg a bokk si noos bi. ah waaw dama bëgg a bokk si noos bi dama xam ne Tapha Gueye 2 man ak moom duñu benn man ak moom duñu benn wala déggoo lu ma lax de Tapha Gueye expérience ay bëri ak moom mais da xëjër waaw bu baax. ñu gis maanaam Seereer am na combat pigi ñëpp amaat combat ñëpp dekk ñëpp amaat combat ma la wax looloo neex man ñoo ngi yow di ma wax combat mais boo yooyu noonu ay général Waly Faye bu euh, xaw ma fan bu parcelle ñoo ngi may waxaat ay yeneen boo yoo xamante ne mooy loolu daa mel ni yaa taamu yaay taamu ñu nga bëgg a bëreel taamu ñu ma bëgg a bëreel ndax parce que ay ndaanaan laa daan diggante ak Ndiassane da laa bind si stade bi nga tax. waaw kon jeex na 4 combats 4 victoire laa fa bëri fii. di nga gars yi seetaan la stade bi. non xam naa seet yow seetaan nga ma am. <laughs> naaru ziar naa la. waaw ñu ngi doon ziar bu a baax ah. waaw sant nañ bu baax alhamdulilah. ñu gis tey Ama Baldé dafa am presse yéen Pikine waa yëpp ñëw recevoir bi lu waral loolu. waaw mais lii mbégte la loolu moom moo ñu war xam nga te lii dafa war a nekk dëgg quoi waaw yàlla na nekk dëgg nag quoi. et voilà <laughs> yàlla na nekk dëgg xam nga parce que lii dafa waaw parce que àndandoo rek mooy dëgg quoi ay nit bu leen yàlla boole ñu bokk benn dëkk benn dëkk te mënuñu mun lu bëri munuñu ko defante seen biir dañuy jàppante te jàppante bi di feeñ ci côté bu nekk nag côté bu nekk mu nekk si lu nëbbu ak lu nekk lu feeñ. ñu gis lii gënoon a am ñu gis lii dafa paay sax ñëpp dañoo kontaan ñëpp dañoo dañoo dañoo koo gis rek mi ngi ree di kaf di foo di ree la ma waral météo boobu. waaw parce que xam nga li ko waral moom mooy avant tout borom bis bi quoi Ama xale la bu am jom li ngay seet ci mbër yëpp boo xoolee danga koy gis ci moom ba pare mu am leneen lu nekk ci moom moom mooy danga koy xool rek am yërmande ci moom am yéene ci moom ndax xool bi mu yor xam nga tey jii ku nekk mën na koo fekk si ku nekk mën na koo fekk si. tey Pikine jëmaat si bis Ama Baldé jëm si bis bu mag diggante moo boo Bordeaux. waaw combat la combat la nekk mbër bu ñu respecté nag parce que du bëri mukk ba nga ni cam dina wane fula jom ngar mi lu ko yalla jox mu jël man dama nan nit nan lay farale giri Bordeaux nekk supporteru Gris Bordeaux ba pare di mere giri Bordeaux ndax du dugg ci lamb nga jéppi ko li def yëpp lay def mais ndam yalla ko mom xama ndam yalla ko mom respecté nañ ko trop mais bi nak mom <laughs> naaw daa mel ni daa soxla de. non bi mom da soxlo quoi dañu soxlo xama te ndox du bay yonam wax ama ndox la bu mu bay yonam moo waral retrouvaille bi ñoom Eumeu Sène ñëw Boy Niang ñëw ñëpp ñëw. ñëpp ñëw parce que dañoo soxla bis bi moom. Ah, seen bis bi ñor na leen ñëpp ñor nañ dañoo ñor carrément bis bu ñor la. kon dimanche lu ñu war a xaar si Ama Baldé mu ngi bëri see Gris Bordeaux. yow Ama a Ama li nit ñi xaar ci moom arbitre bi sifflé la nit war a xaar ci moom bu tuusee day neex bu duggee ci làmb da nga yëg ni mbër dugg si na xam nga su bëree rek nga xam ni ndaanaan def na li mu war a def noonu la demee ñu gis ni tamit yow yow tamit ndaaraan nga ñu gis tamit commencé nga am may booy sens ñu gis ni euh, Bib Diop bu soobee yàlla. Bib Diop waaw ñu ngi ci nag di ko di <laughs> xaar yàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm mais ñu ndam rafet na. sa diggante sa diggante xale yi ndax gis nañ saa boo jugee si beneen xarit lañ dama leen a bëgg dañ maa bëgg. samay <laughs> a <laughs> la état bi ñu gis nii état du duma xale yi la la nar rek. yàlla baax na yal na yàlla nangu ñaan <laughs> amin naa bëf waree ko. na yàlla nangu ñaan jaayef gaay ñëw Pikine booy yëpp topp la. non non non non xoolal booy sam boo lay mais Pikine tey mënu ma see wax dara ndax Pikine tey jii ñëwaat naa ñu ne doo dugg. lan mooy seen problème. naa la bërëb boo gis nee naa la bërëb boo gis. nee la bërëb boo gis boo déggee mën na ñaa xamul. waaw boo gis am na personne boo xam ne day bëgg a suul ndaanaan waaw mais xam naa ko bu baax mais ndaanaan bu dee dox bàyyi ko mu dem ndax Pikine tey jii bis bii ñu am nii man damaa yaakaar ne réy gi mu réy man xañ naa si xana dëgg neexul parce que bu doon benn nit am na ñu ma fi bëgg mais nga ñëw nga xam làmbaloog bu baax ne tey dama koy toroxal si bunt bi loolu tamit rafetul si gor man mun naa toog sama kër seetaanaat lépp daa jum jégal ko ndax man mais mais mbër mbër defuma ko fi waaw déglul déglul mbër defuma ko fi fan si defuma ko fi nit ku xam nit defuma ko fi mais nit boo ko xoolee rek xam na li muy wax xaayaan ku dégg séeréer mais nañu xoolal rafet bi mu rafet quoi parce que man tamit damaa ñëw pour defarale leen rek. mais pour classer leen. parce que boo yaa bu ma nee hop hop hop ñëpp ne der. loolu waaw te tamit damaa waroon a ñëw xool tuusu booy ñaar tey tey tuusu Ama Balde ko ba na mu doon defeek na muy defee tey benn la wala du mu yël bu ma xam ba xam na wala du bu ma génnee la. mais tey may ñu ma ko kon lu may wax man dama wara liggey liggéey. barki Serigne lo boo yéen a tax ma may ko mais tamé da nga xamné ñom tamé dañuy liggey quoi mais man tamé dañ ma war ne dama wara liggey mais xolal ñi ñoo tax ma wax wallahi mais mais mais champion euh, la may ko mu top so xolal may ko ko rek. nga ñew tay ñu la do dug loolu lu la def. non metti wuma ma de parce que lamb mo mel nonu lamb nee lamb waaw lamb lamb du ëmb day wasi. arrêté waay.